fii ci Sénégal li ëpp la ñuy lekk ci ceeb riz non parfumé la waaye bu nu sukkandikoo ci jaaykat yi am na nañu ay jafe-jafe bu baax ngir jot ci boobu ceeb li ko waral mooy ndogal li gouvernement bu Inde jël ngir dakkal lenn ci ay exportation de riz juillet bi ñu génn ndogal loolu li ko tax a jóg mooy ñoŋal seen marché intérieur li ci liñ fii lekk ci ceeb ci réew mi téeméer boo jël Inde moo doon joxe fanweer ak ñaar yi ndogal boobu nu jël dina am njeexital bu baax ci ñënd ak njaayum ceeb fii ci réew mi bu nu jàppee ni lu ëpp genn wàll ci li ñu fiy lekk dañ ko doon jéegaani moo ne président Macky Sall 2012 la doon dig ni autosuffisance dana am ci atum 2017 juróom benn at gannaaw boobu la dikk li ñuy bay ci réew mi mënu la matal genn wàll leen fiy lekk weeru décembre bii ñu génn Inde wax na ni dana exporté lu toll ci six cent cinquante mille tonnes ci ceeb ci juróom benn weer yi ñu jëm cinq cent mille tonnes yi fii ci Dakar nañ ko nar a indi loolu mën naa tax ba duñu yegg ci situation wu pénurie réewum Sénégal di jéegaani lu war a toll ci benn million wu tonnes ceeb at mu ne mu nekk ñetteelu réew bu ëpp li muy jéegaani fii ci Afrique bu nu sukkandikoo ci kuréel bii di FAO bu liy dakkul xiifal mën naa dal lu war a toll ci virgule deux million de Sénégalais